xam naa yow laay mujjee ci nuyoo bi di nuyu honorable député yi fi nekk xam naa ni en dehors de Abdou Mbow mi kon député yëpp seen lañu sant léegi waaye Sénégal a kon kenn du ko bañ di nuyu ah kilifa yi fi teew yëpp muy responsable Benno Bokk Yaakaar muy responsable alliance pour la république yi fi ne muy responsable mouvement yi jàppale président Macky ca nekk ci dëkk bi muy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kuréelu développement yi ñëw teewe jataay bi waaye surtout di insister ci commission départementale bi nga xam ne moom moo taxaw te jigéen ñi ne ci tawaral jataayu tey Euh, madame la ministre sawar naa ci ñëw fekke ci sargal bi ndax suñu boroom moo dogal ñu bari luñ bokk ba ngay ubbi permanence defe naa waxoon naa mbooloo mi ne yàlla dogal man ak yow ñoo bokk benn maam muy Alboury suñu boroom dogal ñu bokk Thiès suñu borom dogal ñu doon jëm ci élection présidentielle ñu bokk même candidat muy le président Macky Sall suñu borom dogal tey jii man ak yow ñu bokk benn parti politique muy alliance pour la république euh, mu doon nag loo xam ne lu ma sawaral a def la ndax. dafay confirmé loo xam ne ci weeru février le 17 bi président Macky Sall ci cadre campagne am ñëwee cees dama wax waa Thiès ne leen kii di président Macky Sall ginnaaw deuxième touru 2012 mësu leen koo votel waaye wan na leen ni soxorul ndax bu soxoroon diggante bi li mu def ci Thiès yëpp du ko fi def. te man état le maire mën naa ko seede ndax lu bari bala ñu ko fee def man la ñuy bind muy tali muy leneen muy leneen donc am naa ci lu ma wóor te mi ngi koy def te boobu ba léegi waa Thiès defaluguñ ko dara mani leen mani leen woon le 17 février man leen élection bii nu jëm ñu ne am ah, man leen Macky mooy gañ loolu laa gëm bërigol ndamul kii Macky Sall man leen mi ngi ci mbartal mi rikk waay teg leen ci seen loxo man leen su ngeen ko ci tegee mooy gañe su ngeen ko ci tegul mooy gañe kon bu ngeen ko ci tegee dangeen ñuy gën a yombal suñu yombalal suñu liggéey ci wetam donte nag donte nag demewul noona waaye luwaawu démocratie mooy loolu ñu nangu ko ngir ni mu gañewulee fii noonu la gañee ci Sénégal waaye ba mu ko defee warul Cees ginnaaw lii wane ne warul Cees ginnaaw mooy jataayu tey bi su waroon Cees ginnaaw tey du ngeen ko sargal ni ndax le président Macky Sall won nañu ne xam nañu lan mooy loi wu mooy boo demee ci joŋante le peuple a liberté de voté et de choisir fii dans le cadre de la ville de Thiès ci élection présidentielle le peuple de Thiès a voté pour quelqu'un d'autre mais le Sénégal puisqu'il s'agissait d'une élection présidentielle a voté pour le président Macky Sall et lui a donné les moyens de signer les décrets bokk na ci décret yi mu njëkk a signé mooy seet suñu jigéen bi suñu xarit bi suñu jàmbaaru Thiès bi mu def ko ministre ci gouvernement ba pare def ko muy porte parole kon kon bu dee mooy doon voix bi gën a fés ci gouvernement bi ndax li muy faral di wax ñu jox ko Thiès kon wanaat nañu loo xam ne ñun soññ lañ koy mën a jàppee kon nañu joxante ay yoxo gën a jàppalante gën a dëgëral suñu ay diggante jëm dans le sens de l'unité parce que je pense que moom mii xam na ni le président Macky Sall foo ko fekk lii doon yitteem mooy njabootam doon benn gën a renforcer seen unité gën a gën a déggoo ndax ci biir déggoo boobu ci loolu nekk di juddoo ma bëgg a tëje ni j'ai invité le dimanche dernier il y une semaine parti yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar dama leen tey Sénégal yépp a ngi wax ne parti Sénégal dañoo bëri su fekkee parti Sénégal dañoo bëri te ñépp de dafa war a am autorégulation avant muy am régulation administrative maanaam parti yi bokk ci Benno je les ai invités ci seen kanam ne 80 pour cent yi bu ma sañoon ñu def ni man ñu jóg ñu waxtaan avec le président Macky Sall ñu déggoo pour bokk benn parti ñeneen ñi ko mënul ñu jéem a seet avec l'APR comment constituer un front jërëjëf. waa ñu tàccuwaat le maire Talla